Rewmi 24 dal leen ak jàmm ci xibaar lundi 23 euh, octobre mu mel ne rek jamono yi kii di président Ousmane Sonko daal dinay sonn lool bu ñu sukkandikoo rek ci waa Yewwi Askan Wi kii ñuy wax Cheikh Tidiane Dièye yëkkati révélation yu doy doy waar daal di koy teg ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ma ngay xam ne ne Ousmane Sonko jamono yi dafa def li nga xam ne rek mooy euh, malaise moo doon loo xamante ne. mënalatul boppam dara fii ñuy wax ak yéen nii ci hôpital principal ba lépp lu muy def jamono yi médecin yi ya ñoom ñoo ko koy defal moom mii di Cheikh Tidiane ma ngay dànkaafu l'état au Sénégal ak Macky Sall di xamal ne Macky Sall rek jamono yi Ousmane Sonko ci say loxo lay nekk lépp lu ko mën a dal responsable bi yow la ndax fi mu toll nii ci hôpital principal ba nga xam ne fa la nekk rek ñëpp daal di tiit ci moom ndax nang ñu xam ne rek fekkee dañ ko ko moom mii di Cheikh Tidiane Dieye moom moo xamle yooyu nee na Ousmane Sonko jamono yi daal mën na lutul boppam dara dara dara ci hôpital ba gravité bu foo ko tag rek daal dina koy weesu fii ñuy wax ak yéen ni tombé ak lundi 23 octobre kon bok mi nga ginnaaw ba nga xamante ne tey jii rek le sixième jour boo xam ne di Ousmane Sonko ko maa ngi koy amal ab grève de la faim ci hôpital principal